asalaamualeykum wa rahmatullah bokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci yonentam ba sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla mu defal nu jàmmi àdduna ak jàmmi yowmal qiyaam defal ñu tawfiq defal ko mboolem jullit bokk yi xissa bi ma leen di jox benn cheikh bu nekk Arabie Saoudite moo ma ko jox ni moo ko dundal boppam ginnaaw bi ma ko nettalee ba noppi nag xissa bi waar na ma lool man mu doy waar lool ma xalaat ni naa ko séddoog samay mbokki jullit ndax du ñàkk moo ñoom it ñu waaru ci mu am lu mu def ci ñoom looloo tax ma di ko nettaliwaat cheikh bi nee na benn bés dafa àndoon ak ay bokkam am ci dëkk bu ñuy dem dëkk bu ñuy wax damaam ca arabi Saoudite nee na ci yoon wi nu gis mbooloo mu bari lool taxaw ci benn jàkka ak ay oto yu bari lool ba noppi ñu baari yoon wu mag wi cheikh bi laajte lu xew fii ñu xamal ko ni ko benn waxambaane lañuy waajal ngir denc ko ca armeel ya cheikh bi nee na ñi mu àndal gannaaw dañoo baare yoon wu mag wi te ñi ngi waajal fii ab néew nañu wàcc fexe bokk ca jullee ga ak ca rob ba ndax ñu mën a am ca tuyaaba ya sunu noppee doogu continuer sunu yoon gaa yi ne ko acca bismillah cheikh bi nee na ñu wàcc ànd ca jullee ga ànd ca rob ba dellusiwaat ci kër gi bi nu dellusee ba mbooloom yépp toog ñu seen benn waay bu jóg taxaw di wax waa mu ni man dey may juru xale bu góor bi faatu yéen mbooloo mi képp ku fi ñëw di ma jaale si mën nga ñibbiwaat ci jàmm jëre nga jëf waaye képp ku ñëw di ma ndokkeel si tey di ma félicité fa ahlan wa bien bienvenue welcome képp ku ñëw di ma ndokkeel si tey dalal ak jàmmu mu ni li tax ma wax leen ko mooy sama doom ji faatu tey diirub fukki at ak ñeent mësuta julli benn waxtu mu ngi ci kër gi ma di ko gis mësuta woor mësuta jàng alquraan mësuma gis mu def lu baax wala mu wax ko mbaa mu jëfe ko diirub fukki at ak ñeent waaye nag lu jiitu muy faatu benn weer ma di ko seetlu ci kër gi li muy génn bariwut foo ko fekk mi ngi julli mu ngi jàng alquraan mu ngi wax lu baax di ko digle di ko def cheikh bi nee na wax ji jaaxal ko lool nee na mu fexe ba gis koo xam ni ci famille bi la bokk mu laaj ko ne ko loo bokk ak ki faatu mu ne ko sama mag la man rakkam la cheikh bi ne ko dooma nettalil histoire sa mag bi ndax li sa baay wax jaaxal na ma lool rakkam ji ni ko man de sama mag ji faatu tey amoon na ñeent fukki at ak juróom toog na diir bu yàgg lool mat na fukki at ak ñeent du julli du woor du jàng alquran demoon na ba murtat teyit lépp lu bon daan na ko def dem na bay jaay sàngara ak dorog benn bés mu tukki dem ci réew bu ñuy wax Amérique takk fa soxna soo xam ni gëmut yàlla ndax moom murtat na ci door bi mu ngi woote di woo sama yaay ak sama baay ba mu yàgg wooteetul kenn xamut ci lum nekk ñun xamuñ ci lum nekk moom it xamul ci lu ñu nekk kenn déggatu ko benn yoon nekk na fa juróom benni at rakk ji nettali nee na benn bés mi ngi fàttaliku yaayam julli ba noppi toog ci sajaade bi di ñaan boroomam naan ko yow yàlla sunu boroom man namm naa sama doom ji lool namm naa xeetuk sama doom ji bëgg naa ko gis yow sunu borom yàlla dimbali ma ma gis sama doom ji walla ma xeeñtuwaat xetam ndax namm naa sama doom lool xale bi nettali nee na mu ni ko yaay bàyyil sa ñaan yi ngay ñaan yaa ngi nii di jooy sama mag ji bu fekkee dafa dee dee na jeex na su fekkee dafa dund dana ma sa dellusi kii jërul sonn ci moom ndax dafa murtat bi mu fiy jóge moonte yonent yàlla noox doomam yéefar la woon kon yaay bàyyil sa jooy yi te nga dem toog nee na yaay ji daal di muñ rek dem toog nee na benn bés ñu dégg ko fëgg ci kër gi guddi bi nu demee ubbi nee na fekk muy seen mag bii faatu tey fekk mu ngi wat bopp bi def ab nel nee na yaay ji séen ko rek song ko kon kontaan di wax rek naan ay sama doom ñëw na sama doom a ngoog sama doom nee na magam ji nag di fóon yaay ji ci bopp bi ci yaram wi ba ci tànk yi di ko fóon nan ko yow yaay toog naa diir bu yàgg lool julliwu ma defuma lu baax waxuma ko jànguma alquran te lu bon lu nekk def naa ko ci diir bu yàgg bii mat na fukki at ak juróom benn loolu la ko wax mu ne ko takkoon naa sax soxna soo xam ne gëmut yàlla ma murtat ànd ak moom lu xaraam lu nekk def naa ko yow yaay waaye nag gis naa ni borom bi dafa def leeroog gëm yàlla ci sama xol ndax kat semaine bee ñu weesu damay dox ci mbedd américain ba mu yàgg ma far aw kayit yëkkati ko liir ko nu bind ci ay aayay alquran fekk kayit wun sànni la te xamuñ ko aay yooyu ba ma ko liiree ba tey leeroog alquran ji daa des sama xol di xëñ-xëñi rekk loolu ma delloo si waat fii mu ñëwaat ngir tuub dellu ci sama borom jubluwaat alquraan nee na sama yaay sax gëmul woon li sama mag ji di wax waaye rekk ñu dalal ko nee na nag mu xëy di jàng alquraan rekk ak di julli ak di jaamu yàlla foo ko fekk nees tuut saa yu nekk rekk mu génn di jàpp duggaat ci néegam li mu génn bariwut foo ko fekk mi ngi jàng alquraan ak di jaamu yàlla rekk di julli rekk xaritam yi mu amoon yëg ni dellusiwaat na ci dëkk bi bi nu ñëwee di ko fëgg di ko seet si moom dëgg leen a wax ni képp ku ñëw di ma seet ne leen ko awma jot du ma gis kenn nee na mu nekk noon di jaamu yàlla di jàng alquran foo ko fekk ba benn bés mu wax rakkam ji ne ko xarit yi ma daan àndal yépp wool ma leen bis ni ko tey ma waxtaan ak ñoom nee na mu dajale leen wooleen moom muy wax ak ñoom ne leen yéen samay xarit man yàgg na ma ànd ak yéen daan leen jox dorog daan leen jox sàngara daan leen wutal ay xale yu jigéen ngeen di mooy yàlla ma ànd ci ak yéen waaye maa ngi doog a yëg bànneexu àdduna ginnaaw bi ma jubloo alquraanul karim mu ni leen yéen samay xarit li ngeen nekk du dara fase leen àdduna fase leen ko ñetti yoon te jublu ci alquraan ngeen xool seen dund dana neex dana soppiku mu ni leen man de fi ma toll bànneex rekk laa yég jàmm rek laa yëg la ma nekkoon aw tàngoor képp la waaye maa ngi ci jàmm maa ngi sant saa boroom jublu leen ci alquran ngeen xool bi mu leen waxee ba noppi mu ni leen lii rek laa leen doon dooyee dellu leen ngeen dem seen yoon amatuma benn jot lu dul alquran rek ci lay nekk ak di julli nee na diiru juróomi fan ginnaaw waxtaan woowu nee na baayam dem ca néeg ba di xool mag ji bi mu fëggee ubbi fekk ko mu sujjóot mu yaakaar ni day naafil la mu di ko xaar ba mu pare ngir mu wax ko soxla jëm koy dooyee mu yàgg lool ci sujjóot bi yënguwul deful dara te déggul muy ngun-nguni baay ji dem laal ko mu daanu ndekk faatu na baay ji yuuxu kontaan ni yéen samay doom kaay xool seen mag ji yàgg naa nekk di mooy yàlla yàgg naa nekk di wax lu ko neex ak def lu ko neex tey jii suñ borom xéewale ko mu faatu ci sa jóot gis ngeen seen mag jàngook mu ne ko lii moo doon sama dundug mag ji ci gàttam loolu la ma cheikh bi nettali mbokk yi man mu waar ma lool ma déggee ci ne mbokki jullit yi man ci sama bopp léegoo-leeg ay nit laaj ma ni ma waaw Ben Omar ndax man yàlla dina ma baal samay bàkkaar bari na de li ma def bari na lool bi ma déggee xissa bi ma xalaat ni ñooñu ma doon laaj loolu yépp ak li ma leen daan tontu nañu xam ni mbokk yi bu ñu yàq sunu àdduna mukk te bu ñu naagu mukk yaakaar ni yàlla duñu baal yàlla képp ku tuub jublu ci moom mu jublu ci yow mbokk yi gis ngeen mbokk yi wallahi alazim lu waay bon bon bon bon bon bon bon bés boo paree pour tuub dellu ci suñu borom borom bi dana lay jël yàlla du rejeté kenn tànk nekkuñ ci jamonoy sokuraat di xar soo jéggaloo yàlla yàlla jéggal la yàlla baal la mbokk yi gis nga li ñuy def lu mu bon bon bon ak lu mu rëy rëy rëy nañu leen dellu si waat tuub dellu ci suñu borom tabaraka wa taala balaa muy wees ndax ëllëg yow man xiyam tuub te nit ki bu tollee ci jamonoy xar-xar yi di sukuraat yàlla dootu ko nangul benn tuub kon jamono ji ñu mënee am kàttan nañu leen tuub dellu ci suñu borom tabaraka wa taala ku tuub wallahi yàlla jël ko yàlla moo wax ci alquran ni qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dunuba jamian innahu huwa alghafuru rahim yàlla dafa wax ne ko Muhammad yow yeneen yonentab yàlla bi waxal sama jaam yi nga xam ne dañoo yàgg mooy yàlla saxoon ci ja ci mooy yàlla di def lu leen neex ak di wax lu leen neex ba yàq seen bopp ci mooy yàlla mu ne ko ne leen bu ñu naagu mukk yaakaar ne yàlla du leen yërëm ndax seen i bàkkaar yu bari déedéet yàlla dina leen jéggal seen i bàkkaar yépp su fekkee tuub nañ dellu ci seen borom tabaaraka wa ndax yàllay jéggalekat bi te ku lu waay bari bari bàkkaar boo jéggaloo yàlla yàlla jéggal yàlla ko wax mbokk yi nañu leen tuub mbokk yi nañu leen tuub dellu ci sa borom tabaraka wa taala yàlla wax ni wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al adabu thumma la tunsaruun mu ni na ngeen dellu ci seen borom yàllay wax de dellu leen seen borom yéen nit ñi yépp ngeen dellu tuub topp yàlla te ngeen toroxlu ngir borom bi tabaraka wa taala balaa mbugalum yàlla di ñëw ci yéen te du ngeen am ku leen dimbali mbugalum yàlla nag bu nar a ñëw ci yow mooy yow mi nekk ci mooy yàlla ci def lu la neex wax lu la neex ba sukuraat jot nga bëgg a tuub su boobaa c'est trop wala nga nekk ci nekk ci ba faatu tuubuloo su boobaa seetoo kon yow ndaw li jamono ji nga amee kattan ci la yàlla soxlaa nañu tuub dellu ci suñu borom tabaraka wa taala yàlla waxaat ni wattabiu axsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al adabu baxtatan wa antum la tashcuruun yàlla mu ñu te ngeen topp li gën a rafet gën a baax te ma ko mu jege ci seen borom loolu mooy alquraanul karim te lépp lu rafet la lu baax la kon na ngeen topp alquran di jëfee ndigal yi ci nekk te di wattandiku tere yi ci nekk balaa balaa mbugal di ñëw ëllëg yomal xiyam ci ngetteel te du ngeen yëg lu xew yàlla ni an taqula nafsun yaa xasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu la min assaaxirin nee na topp leen yàlla tuub dellu ci seen borom ba du ngeen rëcc mukk di wax ni ay waay tey torox naa ndax yàggoon naa sànku ca sama àdduna yàggoon naa mu yàlla ci àdduna tey daaw ma topp yàlla nee na balaa ngeen di wax loolu tuub leen dellu ci seen borom ndax kat ëllëg yowmal qiyaam damay ragal ñu leen reetaan wala ngeen di rey seen bopp ci sàggar gu ngeen sàggaroon ci àdduna topp leen yàlla ak kon nag mbokki jullit wallaahi wallaahi wallaahi nu xolob doomu aadama xomaax xomaax xomaax soo jubloo ci alquran mu raxas ko ba mu set wecc nga doonub jullit bu mat sëkk bu set wecc mbokk yi yonent bi nee na xolu nit ñi dañuy xomaag saxaaba yi ni ko bu xomaagee luñ koy raxasee mu ni leen alquranul karim noo mën a mel boo bëggee dellu ci borom tabaraka wa taala ubbil téereb alquran di jàng alquran moo mën a raxas nit ki ba def ko jullit bu set wecc kon bul yaakaar ni nga bon bon bon yàlla du la baal dana la baal mbokk mi su fekkee tuub nañ nangoo topp yàlla subhaanahu wa taala te di jëf-jëf ju baax nañu ko jaaree nag ci alquran di ko jàng ak di ko jëfe alquran képp a mën a soppi nit ba def ko jul bu sa wecc mbokk yi mënu ko sàggane mukk lii daal mooy xista bi maa ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu saxal nu ci siraatal mustaqim te jéggal ñu mboolem sunuy baax nangul ñu sunuy jaamu yàlla waaye defal ko mboolem maa ngi ñaan yàlla képp ku aw ci yoonu sankute yal na la borom bi wëlbati waat ba nga doon ku baax aw ci yoonu mbaax maa ngi ñaan képp ku aw ci yoonu mbaax yal na la ca borom ba saxal te nangu la ngay jëf ca yoonu mbaax moom wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh